asalaamaaleykum gaay ñu dem ci beneen vidéo ci musique Sénégal bi nga xam ne euh, dañoo bëgg aaru Sénégal maanaam bokk ci niveau international comme ni ko nigérian yi di defee comme ni ko ghanéen yi di defee comme ni ko south africain yi di defee musique Sénégal ñu propulsé ko mu dem bokk foofu man loolu laay euh, rayante quoi ak lépp loo xam ne Sénégal la jëm ci kanam donc tey Pape Diouf lañ am quoi ci son bu bees bi mu tudd. son bi mu ngi tudd guddi gi suuf euh, sax euh, baal leen ma de euh, géer yi donc ma bàyyi leen ñu def ñu suñu chronique bu nga xam ne day direct donc sans partie pris donc ñu bàyyi leen ngeen seetaan. gars yi bi rafet na trop commencement bi boo xoolee. fàttewu leen démb te leen seen cosaan xam ngeen ni maay seen géwélu judd moo tax ba xale bi juddoo da ngeen maa ma sama ween bi ba mu set daal di koy suñu maam yi daan defee suñu ndey yi daan ko def li wax si kiwu senegal quoi mooy li ñuy wax ne musique sénégalaise déjà bu mënti doon bu dee mbalax la amul rime donc da ngay ñëw wax li nga war a wax ah, répétition harmonie zéro pour dire vrai donc juuf Diouf ñëpp xam nañ ne way moom bu dee way rek moo ko dàq ci Sénégal ci ci ci génération ñi fi nekk mais boo xoolee Pape juuf ma dama koy kaas chaque fois ma pab Pape Diouf euh, boo xoolee ni mu tàmbalee way ba ni fu mu toll nii même harmonie lay woyee même mélodie lay woyee même style musique lay def donc man pour man pour musique sénégalaise bi dem ci avant foog ñoom am yàlla jox na leen voix bi Pape Diouf yàlla jox na la voix bi yàlla jox na la nit ñi da ngay nangoo dem ci yeneen univers nga nga musical nga nga nga indi ko sénégalais yi nga ko ci ay quelques sons nga gis ne sénégalais yi bëgguñu ko nga dellowaat ci mbalax bi sa album bi nga mujj génne avant bii noonu nga ci essayé nga mais pourquoi nga indiwaat ñu mbalax pur et dur parce que da nga ne sénégalais loolu lañ gëm ndax yow da nga bëgg def li sénégalais yi gëm wala nga ngaa bëgg am carrière internationale loolu laay laaj à chaque fois parce que boo xoolee mbalax bi ñuy def nii Pape Diouf ba nga nekkee jooloo lii yëpp style musique bii ngay def donc est-ce que style musique bi mooy li lay propulser nga dem ci niveau international bi ñu lay woo di la book foo toll di def ay tournée international mën a gagné disque door wala da ngaa bëgg euh, nekk ci niveau bi pour satisfaire juste les sénégalais am quelque xaalis faj say dépense bu dee loolu nga bëgg. tu as bien fait tu fais de la musique sénégalaise à, à, la sénégalaise mais li génnee musique bi Sénégal plus de rime teg affaire yi mu leer ci kaw harmonie jël euh, li ñuy wax euh, sabar maanaam waxum mu ñëw am ci musique bi de mais nga wàññi ko bu baax a baax a baax surtout loolu nga ngeen ut directeur artistique surtout directeur artistique bu boo xam ne dafa am xam-xamu musique waxuma la koo xam ne rek dañ fa yàgg ci musique ñëw naa la nii la wala nee la directeur artistique moo lay diriger wax la yow nan nga war a woyee ci musique bi pas yow artiste bi ngay demee ni nga sentiré parce que bu dee loolu la rek mën nga woy waaw woyaloog nga maanaam yow bu dee woy mën nga ko bu dee tegu ci ci ci ci instrument comme ni ko kii de euh, bu sénégalais mën nga ko mais dafa am lu des loolu lay wax My role la directeur artistique di de di ya khalla ma seetlu mooy harmonie boobu mu utiliser foofu noonu woyoon na ko woyoon na ko ci musikam bu njëkk ya beneen beneen tempo bu leen neexee ngeen bàyyi ci xel bu baax li ma leen di wax tempo bu mu indi fii nii woyoon na ko ba dafa jël changé parole yi indiwaatal ñu ko jël musique bu cadencé te ko ci suuf noonu la ñuy répété rek loolu loolu loolu loolu du musique ñu wante loolu juste que ne maanaam da ngay dem ba yow da ngay sàppi nit ñi te yow do xam li tax nit ñi ke sàppi leen alors que nu way nga Pape Diouf da nga mën li ngay def da nga mën way mais du bul top li nit ñi di wax rek parce que nit ñi bo don topé mom say manam euh, di xolé leen neex euh, bo motul manam yow sa carrière da ngay dem ba benen sañ la ne ah, réel saa même chose xam rek yow do xam sax tax ñom ñom ñom duñ la cons parce que dañ la dégg dégal la dégal la ci même même même kat même rythme bi. même mélodie yi nga indiwaat xam nga te te mooy la ñuy changé donc directeur artistique boobu noonu may wax noonu moo des ci ci musique sénégalaise bi quoi euh, ma bàyyi ngeen kon ne donc harmonie bi laay wax gis nga fi mu woyee fii lii Pape Diouf harmonie bi woyoon nga ko fenn moo yi nga changé rek moo yi nga changé li ma leen di wax loolu laay bay boo ñu bëri nañ ma ci mere mais tant que tant que changé wuñ loolu ci musique sénégalaise mooy le fait que nga woy ci dara ba pare demande indiwaat ko changé moo yi changé paroles yi ñu koy def du Pape Diouf kese ñëpp a koy def presque te loolu moo tax musique sénégalaise Sénégal rek a ko mën déglu après da ngay dem ba harmonie bi da da lay soof léegi yow artiste bi nga koy bëgg dem ba yow après day dee quoi yow yow yow waay te fii da nga gis da nga nekk Europe wala nga musicien ay art parce que ñoom dañuy créer dañuy créer xam nga dañuy créer quoi c'est pas ah, laziness cela tuh ada pas dire que ni da nga créer benn mélodie rek wala benn harmonie mu neex rek que yow chaque fois indi album da nga war a indiwaat mélodie boobu changer paroles yi non du du une musique cadencée tegu goûté parole bi une euh, musique sénégalaise donc loolu mooy la Il y a que les sénégalais qui peuvent qui peuvent euh, nous comme c'est dommage euh, une voix aussi belle que celle de Pape Diouf sais, nga way la dafa c'est dommage que mon amour directeur artistique de renommée bi nga ki nga xam ne tey jii nii moo tax ñu naan directeur artistique nekkoon ci côté am waroon ko mun a guider internationalement waroon ko mën a yóbbu ci ay univers musical yu tax ñu mën a jariñu ci musique am ñu mën a jariñu ci talent am xam nga c'est dommage pour le Sénégal man fa laay waxee quoi Pape Diouf c'est un Youssou Ndour avec sa voix xam nga li Youssou Ndour mën ci voix am yëpp Pape Diouf mën na ci voix am mais gars yi lañu lay pousser ci mbalax bi mbalax bi noo defa ci mbalax bu def fi mbalax bi fi saf doo du foofu man Pape dama koy déglu parce que dafa mën li muy def mais damay critiquer la musique en tant que telle maanaam ni ñu koy defee ñun Sénégal par rapport ak yeneen xeet yi ni ñuy defee musique pourquoi ñun à chaque fois rek suñu musique mu ngay ru sax tegal ko euh, beneen xeet du ko déglu parce que parce que parce que tellement c'est si dafa bëri këcëg këcëg këcëg këcëg këcëg këcëg këcëg day dem ba ci biir sax yow da ngay réer yow mi yow mi sénégalais bi këcëg këcëg këcëg xam nga parce que c'est en cadence xam nga amul amul harmonie amul dara loo xam ne tey jii nii peut-être ñun dinañ ko déglu même ñu sax boo koy déglu yàggee da lay soof parce que da ngay dem ba da lay tànkal nga jëm sax ne wàññil musique bi yow xam alors que yow musique I don't know maa ngi ciy jégalu nag bu fekkee ne dama offensé kenn li ma si jublu rek mooy ñu fexe ba musique sénégalaise bi ñu changer ko parce que ay talent yu meli pap Pape Diouf yi nga xam ay ndanan lañ ci li ñi def waru bàyyi bay gaay di leen guidé ci ci li nga xam tay yi ni c'est éphémère parce que li ñi def ni c'est éphémère nga dem ba benen instant doto doto mëna satisfaire sénégalais yi te sénégalais yi bo top ci li leen neex rek après ñom ñolay bay après yow yow yow musique yow c'est toi l'artiste yow ya leen di guidé ci sa univers boo boo xuusee dem lañ lay topp far force kon Pape Diouf li ma lay conseil mooy mbalax bi amatul loo ciy prouver mën nga ko amul loo ciy prouver ti bàyyi ko fi xool créer defal musique pour dund pour dund pour pour bég bég yow quoi ak yow sa voix yow fan nga mën a dem ci musique fan nga mën a fan la mën a yóbbu ci àdduna bu la ci nit ñi bàyyi nañ la ci bàyyi bu dee ne yow tey jii nii looloo tax nit ñi topp la. na la ci topp kon mais war leen yow sa talent parce que du du mbalax bi rek la la yàlla may am na leneen loo mën a yóbbu sa voix dafa garaaw Pape Diouf exploité ko gars yi maa ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay ba beneen yoon.